Allah Allah astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi tubu ila Allah tawbatan nasuha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nas al-haqq bil-haqq wal hadi ila siraat al mustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi miqdaari asim barke Cheikh Massamba barke Cheikh Massamba barke Cheikh Massamba fa sa liggéeyal am borom Tuuba fa sa liggéeyal am borom Tuuba barke Sëñ Tuuba wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم سان إلهي بالمناجهات ومن أفناء الجماعات دار العلماء والأولياء من لا يسأل خوت أولياء خذرتي خذرتي خزوتي فاخر خزوتي فاخر خزوتي فاخر فاخر فاخر قصائد الكرام فاخر قصائد الكرام فاخر قصائد الكرام فاخر قصائد الكرام ولتخوض أمرا خر المرام هديتي أخشلة بكل ملك كان منازل واحسح الملك ما توجه نسى الأخ لي بلا إله لي بلا إله لا إله إلا الأخ يا سيدا في الماء خلص ويا محبا فؤادي دحر مسواء إني أتيت لوجه الله ساحركم أبخل بنيل أرجو نيل أرجو جزاء خلو إبراهيم خرج جزاء خرج جزاء خرج جزاء ومنا دعيك أو أعطى فاحلم بأنك عندي زردا أبدا وساق ربك في الدنيا وأخراك فدم على صدقه والإخلاق أرجو متعدا في السر والجهر كي تنوى كي تنوى مساء حمد وشكر لمن كل إنسان له ورد دون سخطه عند سر لا سنائي والوالد وعزمتم مصالي من بني ديان أنصار للأمش كل أخ أعبار مصر مصر من أجان وزي هجم من ساء يلزق سرسا أخذ خسد الله شارة فارخة فارخة دار أنصار

فرخ نرأس يا أحمد المساح سنين يا أحمد وبخلي الخير يبقى حين يا أحمد وبخليك مساح صالح قدر وبصعيد يخزن أحمد وبسليمان نوح يمثل الزمير وزكر أحمد يحيى هود أحمد هرب يقوم صاح الأعزم وأنا داود وزيك مليح يساق مطير أحو ويوسفنو بساق ما غير الأمر من بيائي ورسل أحو والملائكة ترى ثم سوت يحن جبريل أحو ثم ميكائيل أحو وساحب نفسه إذا فرغ أحو وينفر ما يخي ومثلا إلا أحو وبصحابتي ثم الأولياء إيمان ولو بينا وبزديخ وبالفراخ شمس زمان رجل سمادي سمنا بمالك سنة سنة بمالك سنة سنة مالك زن سنة بمالك زن سنة بمالك زن سنة شفيع أبي حنيفة أحمد محمود أحمد العرش والقلم مفقوس صدعتك وزيدك وبالكرسي الأخ وبالقرآن وبالتقات سبب ما داو رجال ويحيى الله بلغ ساعتي وتزلمه عليه وآل وسحنا ورسولك واسبرنا علينا واسبرنا علينا واصبرنا علينا واصبرنا واصبرنا علينا واصبرنا علينا عافية وهم الخصدة في دار الأخ موت الأخ كل باب كنت فاتح لصالحنا من خير أخ وصلنا نحتل رسل ضفنا أخ زالا ورانا جناح حسين الأح وكملا كل ما نمحو ونقصد نمحو وهم أغلى نخشى الأح ولنا كل شيء سحب وسحرنا وزن كل شيء تنزل الأح قل لنا وعمرنا سحر لنا أمرنا وهم الأح وسواء ودبرنا كل أهدائنا تقربنا خبر سؤالنا يا أخ الأخ وكل أخ وزن من كل معركة ومدنا من بلاء يدح الأخ ونجنا من بلاء ونجنا من بلاء ونجنا من بلاء يدح الأخ وافتر أحد مقصد بن حلم زلزلت شدة والفقر الآخر إعانة خلة مقصدة خلق وفاقة معتزم والآخر والفتنة والآخر والحرف مع خلاق والبرخ مقصد أخي والخد الآخر حرب وبرد ونحبل قربة خمن ضلالة حرج والخم يا أح وهو أعمة وخطاء يا ذا الجبس والقصد والقصد سنقصد وخلق النرج المعادل عاد المرعدل سمع الجساء ميني والمساء ومن خدعة الدنيا سمع آخرة ومن فضيح الأمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مرام يا كل يوم خير الأقل وارث العزيم مساء وكفني الله إن سألتك قلبا خاشعا متاء بأن من كسر نفي الآه وتنخ بلد بحمك نتبفعت مع زوجة مسلحة بدين الله وكل ما يزال من شر حسد مخزر فمن واشتر يمان كان أح واشتر السحر واشتر الخلق انسهم محجنهم واستوى أحد سمي أح إن جعلتك في الأعين يا شغتي حسنا حسنا فكن من جاء أح فأعادتني إلى نفسي فحلتكم مجيبا حيث ما أح ومن لساني وخلقي ذاكرك وانا عند المماقي معني ما يقع سب يقين في قلبي بلا وجل سب يقين في قلبي بلا وجل سب يقين في قلبي بلا وجل حتى أحبه لحط الحق أحب ولو الموت روح مفحة من كل شر وقد الدم أحب وحل الجسم حجر فاعرف في الخفي لا تنينه بحق وكل نزئي حديث خنا دفع جسمي فسرته بحد النساب لا تنمنا لا تنمنا محمد ما خيره يغنق بل في القرآن أغسق هو نجدي وجب على المسلمين معنا ونجو على الدين أبنا واغفر لنا ولا واغفر لنا ولا واغفر لنا ولا وسلمنا وطيبنا بها في الهم لن أحد أنهار الغمز بيان الحمد فأه لن أعزك وانت البري الله في برزخ ما قبل وأزر ومن غروب وخف نجلة لا تخزي منها ليس بخاطرة ولا تخيب رجاها في دقائق وسلامها من ما يكوثر من اخترته من دم الخلق من أح يرزق الزعاح خير ويملك وسعه كفر ويكسر فنخشى الله محمد مسخ الى خيار على كلمة الخلد لمن حسن الله عليه سلم وسلم دائما أبدا ومن خفوه قيم الدين يا الأح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام البشر والحمد لله رب العالمين إنك البصر ينور البصر ينور البصر ينور البصر من زاد القلب والقلب يحيي دم والشفاء يحتمي يحيى محمود البشير يحمل غياله هو النور فيه شفاء للصدور لكل أن ينتمي سلام آخر المسار سلام للبشر للبشر بلا وزن ما صلاح يهتدي ينمو من خرص صلى على من خلق سيئا أعمل سيئا أعمل سيئا أعمل صلى على من صلى على من خلق سيئا أعمل خلق والخلق فأخلق كالخلق والدخل سعد شدي يعني شتتي ولم يكن من فرطي ولم يكن بعدمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا سوى برام بوالي نمول ترسل النوم توفيق بارك ما برام تبا جورين ñoo ngi lay gërëm bu baax ndax bis bi danga ko sóobu rek yanu ko di ko def ñuy ay gone di ko ànd ak yow ba nekk ay mag jëmm tey bari nga ay wéetal nag tey ñii lay gàmm sul nii ñuy bi ñu ànd ak yow di gàmm boobu ñoom nekkuñu fi kon nag alhamdulilah rabbil alamin man maa ngi bëggoon a dem Australie gàmmoo ji fa waaye ñàkk xam na ma lay def ak taalibe yi moo tax ma ne duma ma dem mukk damay toog gàmmoo ak yow te bëkk démb wàññil ma lu bari li lool barki dem Baye Moussa Gueye mii bi mu nelawee da nga cee def acte boo xam ne daf maa tuuse lool sore ci sama xol màggal gi ak waxtu màggal gi ak coonoy màggal gi ak nit ñi nga bàyyi nit ñëpp bàyyi waxtu wi yëpp dikk ànd ak rob bi ñu sang ko di ko teewe ñu di ko defar ba nga ñëw ci barab bi ànd ak moom ñu denc ko nga taxawe ko jëmmal ko jëmmal ma nii mu jur ma doon ko toppandoo ba egsi fii ma egsi tey teraanga jooju defe nga ne Baye Moussa Gueye sa nga ko defal ak man mii adduna bépp féetale yow ñi sant Mbàkke ma dëkk ak ñoom sax dañ may nuyu naan ma dama ba bëgg nga xamale maak Mbàkke yu fay te Tuubaa gée ma dëkk waaye man mi ngi féetale ak yow ma féete yow nga féete man man nga defal loolu bisu màggal gi ni mu ni mu taree ak ñàkk foo jaar nga bàyyi lépp ñëw ci denc bi ba ñu denc bàyyi Moussa Gueye ba noppi nga door a delloo ba noppi wëlbati ko taxawaat ma ni ma addi ji defal ma ko ci dëj bi def ko ci dëj bi ba nga xam dëj bi dara manqué wu ci te dëj ba man maay jël engagement yi rek ndax man ku ñemee engagement la yoru ma dara nag waaye sëñ Tuubaa rek laa yaakaar sëñ Tuubaa dong laa gëm te lu ma song balaa jant bee soog mën a remeen ko billaahi wal kitaab barkal Alxuraan waaye nga jàppale ma ci épaulé ma man toore ma ba dara manqué wul ci dëj boobu lépp jàll noo ngi lay sant di la gërëm sëñ Tuubaa yow rek lañ ci am barke alxuraan maa ko wax man je m'engage personnellement et solennellement barke Seexul Xadim billaahi wal kitaab ndax bi nga ñuy jàpp di ànd ak ñun di ñu jënd ak ay oto zéro kilomètre di ñu taxaw di añandoog ñun di reyandoog ñun xam nga nit may ko xaalis baax na lool waaye respecté ko considéré ko di añandoog moom di reerandoog moom di ndékkee ndoog moom looloo ko gën jox ko war ma jox ko tedd nga te loolu nga ñu defal noo lay ñaanal yàlla guddal sa fan te wëral sa cër te bàyyi la fi sëñ Muudu Maamun jang tof toll ci faatu ba ma la ne sëñ Muudu Maamun faatu na danga bàyyi li nga doon def lépp taxawuma bàyyi sa yitte yëpp dawal sa oto bi ba tëngéej ruqi tëngéej yi dama ne Moustapha oto bi mënut a dugg fii ndax quartier bi mu ma mën naa dugg nga ñëw jaale sëñ Modou Mamoun taxaw te loolu man nga ko defal yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wér sa cër te jànkati xasaay yépp nga ko defal fay noo ngi lay ñaanal yàlla mi borom bindee fi yal na la yàlla rof ndimbalam barke sëñ Touba barke xasaay ji Omar Diagne nag boo ko baalee man baaluma ko billaahi wallaahi wa taalaahi yal na ko sama àq daal yal na ko àq mur yi daal yal na ko sama àq daal billaahi man baaluma ko Omar Diagne baaluma ko adduna baaluma ko àllaaxira te man néexuma ay bokkam néexuñu ma àdduna ak alaaxira maa ko wax te procureur procureur de la république moom su autosaisir wul ci li Omar Diagne ni nit ñi dañuy blanchir ah moom war na askan wi de moom ñi ñi blanchir xaalis bi na dem seet leen jàpp leen tëj leen barki Seexul Xadiim ndax tekk ji bari na te ñàkk déggante gi it bari na barki Seexul Xadiim barke maam borom Touba gannaaw nee na dañuy blanchir procureur moom war naa jóg seet ñiy blanchir mu jàpp leen su ko deful war na askan wi war na xeet wi ñu may tuuti dégloo ñu may tuuti dégloo Allah waaw sëñ Akassa jërëjëf li nga wax day ñoog yow ñoo ci bokk tolluwaay ak sëñ Muntaxa Male ñoo ci bokk toll taxawaay dafa tolloo nag ni ñun sëriñ Tuubaa dañoo dimmili ba pare yar ñu sëñ Tuubaa doole jariñu lu dul buuxante te àddina bi doole suñu borom ji sëñ Tuubaa la ko jox moom la ko jox ci zaahir moom la ko jox ci baatin dëgg la sëñ Tuubaa du moroomu mag mastama gone sëñ Akasa daa am loo xam ni lu ñu ko bëgg bëgg bëgg bëgg lu ko sëriñ bi bëgg bëgg bëgg bëgg du am ndax yàlla li mu mën a muñ ci boppam munu koo muñ ci sëriñ Touba boo taxawoon fii suba ba ngoon di jot di wax yàlla amut bés bu nee nga dégg ñu ni Dieu n'existe pas ay saay-saay yoo xam ne Dieu yàllaa ngi leen di teral jox leen ngelawam lii ñu koy noyyi di leen dundal ci seeni kol di feesal seeni jiba ba mu fees dell ñu wéri dara mettiwu leen ñu taxaw weddi yàlla weddi yonent bi te teewut yàlla di leen dimbali faalewu leen waaye loolu mu mën a muñ ci boppam munu koo muñ ci Sëriñ Tuubaa xam nga lu taxa fi sëñ Touba yegg yàlla la kenn musta yegg yàlla foofu dëgg la dëgg la dëgg nee na fi ma yegg yàlla ku la ni yegg na fa yàlla ne ko waxul dëgg ak ku doon dëgg yàlla moomu nag digganteem ak sëriñ bi dara xaju fi lii nga ni kooku nga tudd baaloo ko yow war ngaa xam ni ma nit baaluma ko kenn baalu ma ñëw waaye tooñula tooñuma tooñul sëriñ bi sëriñ bi ni mu mel moo ko naqari diine taxul bu fekkee ni danga nga yow diine nga nitu diine nga dangay wax ci diine bay xam loo xam ni dangay wax ni lii bidaa la walla du bidaa dangay wax ni lii diine la walla du diine nga xam ni diine moo la ñor ba ngay xalaat ni barab boo xam ni dañ fay jaamoo yàlla am na lu fa nekk loo xam ni ay signe yu baaxul la bu fekkee ni diine la ñor da dem ba ni ñëw ni ma sëriñ bi mun a nga ni ma xoolal lii baaxut nañ ko dindi dëgg la ku diine <laughs> ku diine ñor waaw nañ leen julli ji ba dellu si jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Allah nu mu tudd. Ousseynou Ousseynou nan. Ah? Oh. da ngay wax euh, jàng nañ fi kaamil 92. waaw ah. Mhm. ak 41 yaas. أشهد أن لا إله إلا dafa réer mi ngi fii ci gamaat bi nee na ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna محمد الله

Allah